sur le côté tey Zita di tap ak ak doole bi foofu. waaw waaw ñu ngi doon ñu ngi attention loolu baa ngi laqatu di benn côté. Brésilien moom noonu moom suñu vitesse day am parce que moom xamul xamul waxtaan. Kali qui va chercher peut-être euh, une ouverture. non décès décès ah aura tenu que Fadiga aura marqué. c'est le crochet magique <laughs> excellent Fadiga ah, oh, qui colle la vedette à El Hadj Diouf. ah, ah oui quel pel. waaw kii de kii de lu ko lu ko kaaf jàpp biir bi rëy ah. leneen leneen rëy. tànk bi neex na ba tey. en plus c'est historique. c'est le premier buteur. sénégalais. non xam nga sànq en off. Ablaye sànq en off euh, doyen mi ngi doon cité premier buteur yi ci sunu stade Sénégal yi ngi doon ragal nag bii nag ki ko njëkk a dugal jóge bitim réew waaw loolu <laughs> dama ko dama a doon bañ nag parce que wóorul ah, waaw sunu stade la nag euh, Demba Diop ci jeu de l'amitié yi dem si yàlla bu yàggu rek feu Youssou Ndiaye ancien ministre ancien président de la fédération mm-hmm. président Gorée Euh, Léopold bi ñu koy inauguré 85 Gia Jaraaf chez Moussa Ndaw. Cakas ndax invité nañ ko sax Cakas wala Fadiga. Alain Guamé ne avancé. oh non ça c'est le gaucher magique. Oh, oh, ah, il fallait le faire. non il fallait doser la frappe. frappe qui n'était pas